mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di jox kenn ku nekk wàccuwaay bi yell ci yow di jiital ci nuyu bi xalifa généraux yi nga xam ni ñoo nekk ci bopp njaboot gi di ko jëkk ci xalifatul am di taaifatul muridiyya Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan mu yàgg ci loolu tëwér di dem ba di ko ñaan mu yàgg te wér ñaseen laayeen xaadir bàyyiwul kenn noonu lañuy nuyoo képp ku am cër ci lislaam ak cër bu mën a doon ñoo ngi ñaan suñu borom yokk ko te dawal ko te dëgëral la waaye di nuyu kilifa aada yi nekk ci réew mi dale ko ci njiitum réew ak ñu mu yépp ak képp ku nekk ci réew mi rek te am si ndomba tànk bu mën a doon ñoo ñaan suñu borom dëgëral la te yokk la kàttan bu baax ñoo ngi nuyu soppay sëriñ bi ak taalibe yi fu waaye mën a nekk rek di ko topp di ko safoo di bàyyi xel ay kàddoom ñoo ngi lay nuyu baax a baax a baax te di la ziyaar muy réew mi ak bitim réew mboolem gox yi fasantikoo yi nam ngeen sëriñ bi ci seen bi ndax jamono yi yëpp ay liggéey yu nekkoon waaye liggéey yëpp nag ci liggéeyu lislaam rek ak liggéey Sëriñ Tuubaa ci ay sànce yoo xam ni bokkuñu fu ñu nekk te taxawaay dëgg-dëgg laaj boobu ba tey ci loolu la sëriñ bi nekk te muy lislaam di farata di sunna loolu rek moo war gëj a gis ci seen bi ñoo ngi koy jéggalu abonné yëpp ak sopp yi topp sëriñ bi yëpp ci euh, réseau bi di nasu TV Média loolu la waral ñu gëj a def seen émission waxtaanu diine fii ci nasu Média TV waaye ñu indiwaat tey incha allah rabbi jotaay yi tàmbali ko ak sëriñ bi ci njëriñ yi nga xam ne daana ko baax yi ñëpp ñu di ci jëriñoo ci zahir ak ci baatin di ñaan suñu borom yokku ko wér ak gudd fan ak kattan te mottali ko yéene ci islaam ak jabootam yëpp parce que borom Tuubaa kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu la dalalee di te di la ziyaara di la ñaan suñu borom yokk la bu baax a baax a baax suñu émission waxtaan bi biñ biñ war a seq tey ñu koy ñëw ci ñaari turu yàlla di waliyu ak nasiir suñu Tuubaa indi ci ay way ca asiiru maal abraari waaye indi ci ay way ca xasida gu ñuy wax wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin nga xam ne day mel ni sax baax nasru googu la sëriñ bi tëggee xasida gi di wakaana xaqan alayna nasrul muminin te yàlla wax ne inna waliyallah lazi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin kon ñu bàyyi la nga nuyoo te na ñëw ci waxtaanu insha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu nu jiitalatee sant yàlla sun borom tabaraka wa taala te julleeti ci seydil wujud Muhammad alayhi salaam wa ala alihi wa sahbihi ajmahin Seexul Xadim nu ngi ñëw ci jataay boo xam ni miinees na ko ci Nasrou TV Média bii di ko ànd toujours ak soppe yi xaridi wolere yi dana monde monde entier ñu di ñu di ko bége bége sop xamni ñun dañ koy sop sop dafa melni ñom ñoon ci raw diire ngi bo xamni jotaay bi dañ ci bëroon ndax yu bari yu nekkon lepp di walu l'islam donte koor gi seen bi wut fanweri bis yo xamne bis bu nemu boole ke ak guddi te ñoo ko doon ànd moo ci ben émission bi tuddé jota yu diiné bi xawona taxaw waaye it ngi don dox ci fan téré terewut nek gu mu nek seen wéttal shopee, yi tax ñu don ñaanat di ba fu ñu ñi ëpp ci ñoom da ngay dégg ñooy wax ni seetaanatuñu benn dégloo déglootuñu sax journal amuñ yitte ci yeneen toujours ñu ngi ko kal ci nasu ci yu média barakalaa loolu lañ doon ñaan yàlla ñu dem bañ ñoom jox leen lu leen mën a servir luy tax duñ yitte woo leneen lu loolu ndax borom téere bi dafa wax ni soo xasee bay def na nga roy ñi nga xam ni ñooy topp sunu yonent bi te tegtaloo jaamu yàlla yi waaye itam mooy tandiku ñi nga xam ne ñu topp seytaane wala ay jataayam te léegi àdduna firi na ay bànqaasam lu ne xew na te kii sa soppe di la diglu soo ko waxut keneen wax ko donte la ko kookuy wax ñak mana tranquille mom day tax mu yër lu lu yër gis sa lu warul gis ba mu dégg lu ta dégg waye su amé lu ko doy yalla man ko musal ci lola ni ñaan nak sun borom mom mu dëppaleenu ak kaddu yo xamni da fay jariñe ab jam diko ko ci islam saa yu toge toogee rek lañ bëgg a def te mooy tan yoonu gaay yu bax yi jëm leen roy waye pa yoon yeneen ni nga xamni kenn xamul lu mu nuróol mm-hmm. te léegi ku ne ngi wax ku ne ngi def di tàbbal ci biir seen yi mm-hmm. mu YouTube bi ak yi mm-hmm. ci biir nasu ci média nag loolu lislaam moo koy pratiquer bu dee théorie loolu la lay wax bu dee pratique loolu la lay wax nga xam ne loo ci muslu ne mu yóbbu la ci yàlla suñu borom raxasale seen say bàkkaar defar la sa àdduna sa àlaxira kon fu soppi nekk ci àdduna bi donte amerique la donte France la Europe ak liko rek ci gatal amerique ak 52 continents yi Arabie saoudie ak liko wor Afrique gi ak liko wor wër ba ba ngay tàbbi soit senegal nord ak sud ñoo fu way nek ñu lay joxat loxo di la wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow sama soppe Seexul hadim surtout nak ñi nga xamni ni toujours ñu ngi fop seeni jëf di ko tàbbal ci biir liggéey yi lislaam bi ñu yi ñu ne moo xam ñu góor la moo xam ñu jigéen la kenn mën leen lim waaye ñu yàlla jaaral rek a fi nekk waaye wolof nee na lu waay jaay fa yàlla fekk fa jëgg borom bi ko wax tabaaraka wa taala yàlla wax ni itam jëf lu ko waay mën a jëfe rek bu dee lu nëbb la bu dee lu feeñ la borom bi nee na xam na ko te denc naa ko te boo ñëwee fekk ko fi kon ñu ngi ñaan yàlla yi ñu traversé ci koor yi ci traversé ko ci daari alxuraan yi ak yi ci war traversé ko ci sànce yi ñu def ci kër kilifa yi yëpp te lépp ñu ànd ñoom ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom tamit yàlla na yàlla ñëpp bi jaay si dam alayhi ci biir ak ci biti mboolem taalibe yi mboolem yi mboolem dawaayir yi kon nag ñoo ngi ñëw ci jataay bi tey ji bu nuyoo ba noppi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn du dellu siwaat ci jataay bi suñu xaarim bisimilah jërëjëf sëriñ bi jërëjëf ci nuyoo bu matale bi te jotal boo ko defee rek dañuy daal di ñëw sëriñ bi ci jublu ci waxtaan wi mm-hmm. ni nga ko waxee rek seen bi moom lislaam rek mm-hmm. asariatu wal xaqiqa mm-hmm. te loolu nag moo ci gën a euh, bénéfice ndax xaqiqa moom day leneen te mooy mbiru baatin nga xam ne boo ko tegtalee nit ki mu jëfandikoo ko am ci yàlla am ci yonent bi am ci àdduna am ci alaaxira waaye faj ci aajoom nga xam ni nit daana dox ay jéego wala mu faj alal alal ju bëree bëri te du tax mu jot loolu ma di ko baax nit ñi gratuitement di wàcc laahi taalal karim ñoo ngi lay jaajëfal bu baax sëriñ bi te di la ñaanal nga yàgg te wér kon tey waxtaan day nekk nasiir ak waliyu wala waliyu ak nasiir ñaari turu yàlla ñaari ñaari turu yàlla yooyu Nasiru, lan lay firi ak lan lay mandar ci digënté jambi bi ak boromam ndax day melni nasiru mom mom la ñëpp sakku te kene mënu ko ñak suñ borom ngi ko juñu lu bari bari ci alquran wa man nasu illa min indillah in tansurullah yansurukum nasru minallahi wa fatahun kharib ida ja nasrullahi wa fatahu yu bare bare nga xamni yalla ngi gissal mhm. batu nasu wa nasu ila min indillahi azizil hakim mhm. kon nasiru mom nga xamni nit ki mënu ñak ñàkk mhm. nañ bëgg nga ñew ni sëriñ bi waliyu ak nasiru ak nan la ci sëriñ tuba participer barakallah Seexul Xadim wa yansuruka nasran hasisa xam nga batu nasru moy firiñ dimbalul yalla nasru mooy firi ndimbal baatu wali yi mooy firi méngoo mooy ki responsabilisé wu yittee mboolem ay jaamam nga jël ko en charge te ñaar yooyu rek moo fi nekk waaw kay yaa wali yi mooy ki méngoo mbirum luy dox ci kaw suuf ak lu tëdd ci biir suuf di ko méngoo nga xam ni seenu dem seenu dikk seenu dund seenu dee seenu am seenu ñàkk kookoo ko yor alwali yi baat bu rëy la bi ngay tàmbali léegi ci nuyoo bi rek moom nga tàmbalee inna waliyallah nasal kitaab wa yata yatawalla salihin yow mi nga xam ne yaa méngoo mbirum jaam ñi mooy yaa wali yow mi nga xam ne yaay dimbali jaam yi mooy yaa nasiru waa kay bu fekkee kenn ki nag moo foofu ñaar responsabilité yëpp ci loxoom la ne moom méngoo mbir mi te mooy dimbalee moo tax mu sañ a wax ni wamaan nasru ilaa min hindillah kenn ci yéen mënta am dimbal lu dul ci man la koy jëlee loolu la waxoon boo gisee sëñ Tuubaa wax benn baat nit ñëpp daañu ma topp lu tax man di yàlla dafa maa jox njariñ lu ànd te ki maanaam li jariñ jariñi lépp te suñu war a teg na ko sama loxo te luy tax nit ku du loru maanaam da koy dàq mi loxo